yéen kaay yi ñu am mbégte àndaat ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ginaar bu wéetee ca wàllandoo wala fi nee nañu tànk bu ko neex lay gëse jigéen ñi ñoo aye tey ba tax ñoo ngi xëy diwal wal seen moomee ci yéen kaay yu bari ñu xëyandol bi l'observateur mi ngi xëy di waxtaane lu bari ci taxawaay jigéen ñi ci réew mi am na it ay góor yu mu dajal ba leen luy seen xalaat ci bésub tey bi mu di journée internationale des droits de la femme professeur Lamane Baye ak ministre ba woon di Aliou ñoo ngi dikkaat ci l'observateur ci taarixu jaar-jaaru jigéen ñi ci réew mi Sud Quotidien bind na jigéen ñi la ñuy njukkalati ci bëccëgu tey gi di juróom-ñetti fan ci weeru mars Soleil national moom it bésub 8 mars bi la xëy ci xët yoo xam ne ñaari góor ñi la ñu ci daan gis indil nañu ci ab capitaine bateau mu di ñu ci ab mécanicien mu di Ami Jiba andil ñu ci ab ingénieur ba ci entrepreneur anki dina kay moom xëy ak ñun ci ay jigéen yu jàmbaare yuy bay seen waar ba mu mat sëkk ci wàllu koom-koomu réew mi ku ci mel ne soxna si di Ndey Mati Jol ñu gën koo xam ci maire Këriñ ca Soor jigéen jeneen ju ci réew mi di universitaire bii di professeur Amsatou Sow Sidibé mi ngi xam ne ci xët mu njëkk Walf Quotidien ne lu jëm ci gën a dëgëral taxawaayu jigéen taxaw nga ca ne jëfe gi ñu ko war a jëfee des na xereñ gi ñuy sentu ci jigéen ñit ba war a mën a doxal parité gi ci réew mi dafa des mu di gis-gis bopp yéenekaay bi nee nañu ñaari soxnaa ngi yaay maane albis ak Zeynab ñoo ngi koy dàq ci journal bi journal beneen mu di direct news moom it xëy na saf-sàpp ci 8 mars tey bi bay delloo njukkal ñenn ci ñoom mu di jigéen ñi yore kër yore njaboot gi ñu di ay jàmbaar yooyu journal bi gis na ne dañu muy jëye joj ba léegi xamaguñu lan moo ko sooke li ñu xam daal moo di li lakk gi yàq ca salle de lakk ba doonub doom ci marchandise bu ñu ko doon xayma toll na ci ay millions yu bari ñi loru ci lakk gi ñu bari ci ñoom ñoo ngi koy joytu ci biir journal bi pompier fa demoon doon fay lakk gi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne doon joytu bokk na ci li marché ba amul bouse d'incendie maire bu Ndakaaru di Barthélémy maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye lakk na ba doonub doom démb marchandise mu ñu xayma ci ay yu bari des na ca lakk ga for nañu ci wewu nag ñu ne gaz bu kalaate moo taal marché ba marché ba ba muy lakk na mu meloon ak ba mu lakkee bu nuppi na mu mel photo yaa ngi ci xët mu njëkku la tribune journal bi boole ko bind ne sawara wa jeexal na salle de vente di ko dëggal ba di ñu wax ne altine ju mitti te ñuul kukk la jaaykate ca salle de dundu démb tey journal la tribune ab taxaw seddu la xëy ci njëgu dund gi ñu wàññi ci réew mi li mu ca gis moo di donte kilifa yi ci réew mi def nañu seeni pexe ba ne wàññi ñuy njëgu dund gi waaye booy seet wàññi gi ci aw làmmiñ rek la yem ne bu duggee ci marché ba safaan wa nga fay fekk ñu fekk président Macky Sall mi ko santaane ci journal L'Info yéenekaay bi gis ne li ko ëlëm guddi ñu toll moom Macky Sall moo di nu muy def ak fan lay jaar ba régler problème mu mbalit mi ci réew mi ne dafa mel ne ko fa réer ci biir mbalit mi moom Macky Sall ginnaaw ba entente Kadakar Fato njiitu réew mi Macky taxawal na fi ginnaaw bi ay kuréel yu dul jeex yooyu toppatoo mbiru mbalit mi ci réew mi ñoo leen tax a jóg yu ci mel ni UCG Promoged Aprosen ci Sonaged gi mujj waaye terewul mbalit mi ak i jafe tey la gën a compliqué ci état bi ak ci collectivité